waaw communicateur traditionnel ba géwal tuuba maa ngi fii ci kër Cheikh Abdou Karim borom Makar Maxla yàlla na ko fi yàlla yàggal ak njabootug Cheikh Mamadou Fadel gépp ñu ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal Serigne Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal ñu ngi fii ci ndindi fii mooy ndindi kër Cheikh Abdou Karim waaye dañ fay fekk nag soxnaam su baax muy soxna Fat Bintu di soxna Fatou Bintou Pouy ñu ko ku yàlla baaxal ñu nit ku xëyante ni teeru gan ak teral gan rek la xam ku ñëw ndindi wala nga ñëw ci appartement am di nga xam kanay soxna Fatou Bintou ndax moom teeru gan ak teral gan rek la xam kon boo ma laajee ci bis bi laaj ma ci dinaa la wax li ma xam ci moom lii rek la xam chaque année nii la koy defe muy ndékki di añ di reer nii rek la koy defee ba màggal gi jeex moom nag tubaarkàlla macha allah boo ñëwee fii di nga xam que ne soxna Fatou Binetou Pouye yàlla na yàlla guddalu fanam ndax nag moom sëñ Fallou la bëgg ak Cheikh Abdou Karim ndax nag tubaarkàlla macha allah sëriñ Touba rek lay waaje moom lay wàllee bëgg ko lool fonk lool di dox ci bernde bernde boo ñëwee ci appartement am di nga xam que ne soxna Fatou Binetou kon dañ koy ñaanal yàlla yàggal yàggal ko fi yàlla guddalu fanam lu man ren bu déwénee mën mën lu ko. ñëpp a ko war a ñaanal ndax boo xoolee xeeti bernde yi xool xool xool xool fruit nga xool boisson bi xool ndox mi nga xam ni kii teeru gan ak teral gan rek la xam chaque année nii lay def chaque année bernde rek lay def kon dañ koy ñaanal yal na yàlla guddalu fanam soxna Fat Bintu yal na yàlla guddal saw fan bég nañ ci yow lool di sant taalibe ndax taalibe yi jàmbaar lan boobu ba léegi kenn toogul kenn noppaluwul taalibe yee ngi nii ànd koog soxna si rek di liggéeyal soxna si di liggéeyal Cheikh Abdou Karim lii rek ko ñor soxna Faat Bintu moom lii rek ko ñor mooy berde boo ñëwee ci këram doo xiif doo mar loolu moom ñëpp a ko ko bàkki waa Touba gépp nangul nañ ko ko nag Touba gii mu dëkk di nindi nangul nañ ko ko muy joxew ñam joxe lekk rek la xam ku ñëw ci appartement dina la teeru dina la teral dina la jox nga lekk dina la jox nga daan ko mooy soxna Faat Bintu Pouy kon nag bu defee lu mel noonu may géwal ñëw ci moom ngeen fekk ma fi ngeen introsé ma di ma laaj soxna Faat Bintu dinaa di ngeen dina dina dinaa wax ci li ma xam ci soxna Faat Bintu nit ku baax nit ñi nit ku xayante ni nit ku xayante ni liggéey rek la xam ak jàppale sëñ bi ci gan ñi ndax fii chaque jour même bu dul màggal sëñ bi day recevoir même bu dul màggal sëñ bi day recevoir waaye boo ñëwee rek koy laaj soxna Faat Bintu lii rek la xam kon boo ñëwee introsé ma li ma laaj soxna Faat Bintu dinaa li ma xam ci moom dinaa la ko wax teeru gan ak teral gan rek la xam ak jàppale sëñ bi lii moom miin na ko moom lii restaurant amul fay miin na lii mooy soxna Faat Bintu Puy restaurant amul fay moo ko créé Ndindi mooy restaurant amul fay muy soxna Faat Bintu Puy boo xoolee lii xoolee orne bi rek xoolee ni def orne bi waaw. waaw dressé taabal yi ba mu rafet moom ci yooyu lay dox sans bruit sans détail sans bruit sans détail muy nit ku yàlla baaxal kon soxna Fatou Bintou yàlla na yàlla guddalu fanam lu man ren bu ne yàlla na mën lu kopp ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddalu fanam bu ma dee géwal nag ñëw ci moom nga introsé ma dinaa xam li ma xam ci soxna Fatou Bintou dinaa la ko leeral teeru gan ak teral gan rek la xam yaay mii teeru gan ak teral gan rek la xam boo ñëwee kër Cheikh Abdou Karim da ngay ñëw di ko laaj ñu ne ana soxna Fatou Bintou muy terle moom loolu rek la xam mooy teeru gan ak teeru gan ak teral gan nag ki mu koy defal mat naa defal muy Serigne Touba ak Cheikh Mamadou Fadel ndax dafa jëru njureelam jënd ak taalibe ndax intellectuel et niveau la jël lépp ko taalibe ma ñor Serigne Falloo ma ñor Cheikh Abdou Karim ma ñor di ko liggéeyal guddi di ko liggéeyal bëccëg kon kooku dañ ko war di ñaanal yàlla ak guddal aw fanam ndax liggéey rek ko ñor ndax bu ko neexoon toog Ndakaaru waaye daa jël daa jël lépp bàyyi ko ñëw ndindi di liggéeyal Cheikh Mamadou Fadel ak Cheikh Abdou Karim jël njureelam jënd ak taalibe ku mel noonu nag boo may introché si moom li ma xam ci moom dinaa ko séddee même bu dul màggal nii rek lay def bu dul màggal kër gi day teraanga rek teraanga muy suba muy guddi muy bëccëg saa boo xëyee boo ñëwee fii boo ñë boo demee ci sëñ bi ba ñëw fii ngay dugg mu teeru la teeral la jox la ay bernde nga dem loolu la ko ñëpp xamal. kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal weddi gis nag bokku ci weddi gis bokku ci teraanga yi boo ko xoolee nga xam ni ah soxna Fatou Bintou lii rek la xam soxna Fatou Bintou Pouye lii rek la xam mooy teeru gan ak teraangam kon yal na yàlla guddalu fanam yal nañ ko teewe ay déwéni déwén ñun daal bég su suñu xool sedd na guy ndax fii ngeen nu fekk muy kër Cheikh Abdou Karim Cheikh Abdou Karim nag yàlla na ko fi yàlla yàggal ak njabootu Cheikh Mamadou Fadel gépp ak magam ju baax ji di soxna may galas mooy magam mooy magam muy muy nit ku yàlla baaxal di soxna may galas ñu ngi koy sant di ko gërëm fii nga mën a fekk daal wax dëgg yàlla sawar naa ci ngeen introsé ma nga laaj ma ma li ma xam soxna si moo ko ku fi ñëw doo xiif doo mar même bu dul màggal boo fi ñëwee doo xiif doo mar moom loolu la xam ci yii lay dox waaw ci teeru gan ñi ak teral gan ñi rek la soxna Fatou Bintou koy di dox kon soxna Fatou Bintou ñu ngi koy ñaaral yal na yàlla guddalu fanam lu man ren bu déwénee yàlla na mën lu ko man daal bég naa sama xol sedd na waaw ndax li nekk sama xol lépp mënuma ma ko génne waaye li li li ma mën a génne rek laay génne lii daal lii daal laa xam soxna Fatou Bintou man daal bég naa nan ko teew ay déwén di déwén bég nañ so